J'ai a j'ai ji sama Sheikh, depuis les États-Unis d'Amérique côte ouest les door sama gars man côte ouest kay Kibar, xibaar breaking news Ousmane Sonko Fay dem procès le juge Maham Diallo vient de prononcer le renvoi au tribunal n'est-ce pas l'affaire Ousmane Sonko Adjissar sera bel et bien jugée ñi doon wax ana Maham Diallo ñi doon wax Maham Diallo dafa ragal ñi daan Maham jàllo dafa gëm yàlla du yóbbu Sonko euh, tribunal tey ils ont tous déchanté Maham Diallo li Macky Sall bëgg def na ko Maham jàllo li procureur daf na am lu juuf la tudd procureur bi bëgg def na ko mooy lan Ousmane Sonko dafay toog ak Adji Sarr Ndeye Khady Ndiaye Sweet boote dafay toog ak Adji Sarr Adji Sarr ñu atte

yemuñu fa nit dof ñu yeewu ñu ne jàpp nañ ko nit dof mu ngi ci kaso bi ndax daf fi génnoon semaine passée matu sax semaine mu saaga fii ay saaga yu metti wax li ko metti nee na Sénégal du doon dëkku jaam moom bu ndaree nekk jaam dinañ ko day jël bal mu dóor boppam ah ñu ne nag dafa saaga magistrat ñu ne dafa wax xale yi jënd leen ngeen li ñuy wax appel à l'insurrection génn leen ngeen xeex ak Macky Sall moom nee na du nekk jàmm lii lu muy wane ku sëqat ñu jàpp la dugal ci kaso bi tey ñu yow dëgg ya yenn cinq juróomi transporteur ñoo xam dañuy dawal doon grève n'est-ce pas am bëgg ñu seen yeneen mbokk transporteur ñuy dawal grève ñooñ tamit ñu jàpp leen daal di leen dugal ne leen waru leen wax ne ñeneen ñi dañuy grève kon Sénégal kaso léegi dafa yomb mais ñun lii bettuñu parce que wax nañ leen ne Macky Sall xeexkat la makki sàll defkat la wax nañ leen ne yëf yi du doonuloon yomb ba ngeen jekkoo makki sàll dangeen ko bàyyi mu defarwaat tey malheureusement fii la ñu jëm léegi nag man li ma ci jaaxal mooy gisuguma benn réaction c'est vrai que xoolaguma YouTube soo Sonko waxagul moom loolu ma wër la ndax boo xool Sénégal dina bind boo waxoon Sénéweb dina bind mais activistes yi xam naa ne dinañ commencé wax ñoom kay foofu ñoom euh, Ousmane Tounkara mais bu leen fàttali ne temps yi ñoom commencé woon nañu tàngal parce que dafa mel ne ñoom gisoon nañ ne lii day ñëw mais Sénégal kenn yëngatuwul xëy na nag Ousmane ko lan lay def lan la war a def bu wuyu jiwul ñu ne ko ñu jàpp ko takkal ko dara ne ko yow magistrat daf la woo outrage à magistrat woo la ñëwuloo kon dañ lay tëj te dañ koy condamné mën nañ ko sax bañ a dugal ci kaso bi ne nag. yow doo bokk ci élection yi bu wuy jee ñëpp xam nañ fan lay mujj Ousmane Sonko moom ci boppam wax na ko dañ koy tëj ñetti weer ak mais kenn du ko dugal ci kaso bi ne ko nag doo bokk Ousmane Sonko lan la wax moom dafa ne man kenn mënuma tere bokk ci ay élection Macky Sall xam nga ñu bëri ñu ngi naan jàmbaarloog Macky Sall dafa jot mais ñi koy wax fan la ñu nekk ñu ngi ci bitim réew ku mel ne moo moo gën gis nga maa nu ñu nu ñu def ah? këram euh, ñu taal ko ay pono Ousmane Tounkara mi ngi wax di teg euh, audio bi nga xam ne moom moo doon xale yi génn leen ngeen xeex tas leen ci dëkk bi xeex leen mais est-ce que loolu rek dina tax xale yi génn xeex man de ah man de du ma wax man daal li ma gis mooy ne Ousmane Sonko Ousmane Sonko vraiment ñun xamu ci ñu lu muy xeexee te li ma gis mooy ne moom dina wuy ji man loolu lu ma lu ma wóor la est-ce que nag buy wuy ji ci la nit ñi di génn ne ko doo wuy ji kenn xamul mais vraiment man man fu mu nekk je je donne ma langue au la au bois lu euh, euh, ñu koy waxatee euh, la ma langue au chat mooy ne vraiment man xamatuma xamatuma fu ñu jëm léegi nag dinañu xaar réaction président Sonko est-ce que dinañu génn di wax ne dañu dañuy xeex Ousmane Sonko am na benn le 21 defe naa benn manifestation bu mu bëgg a def Kër Massar. fu ñu kii woon rayoon euh, euh, euh, Mariama Sagna mais est ce que loolu sax dinañ ko bàyyi mu am est ce que préfet Kër bi dina ko bàyyi yaakaaruma ko ne dinañ ko bàyyi ah yëf yi doy nag ay du ay concert casserole du ay ah marche yu ñu annulé xaalis bu ñu dajalee lu ma trois cent millions loolu yëpp terewul tey Ousmane Sonko ndeysaan dina wuyu ji aji aji saar bu wuyu ji aji saar lan la ñuy ban ban preuve la ñu am amuñu benn preuve lu dul di ko wax da nga war a joxe sa deret Adji Sarr bi nga xam ne ci ay audioom dafa takkal ñëpp takkal na Mamour Diallo ne euh, enregistré ko 18 minutes Mamour Diallo di ko wax dinaa la yóbbu Amérique procès bi il mu am kon Mamour Diallo li mu li mu waxoon am na procès day am mais vraiment lii doy na waar Mamour Diallo sama xarit la ñoo bokk classe ah, ah, tëdd naa ko doom liggéey naa ak moom ànd ak Macky Sall mais bañ demee ba ci biir 2019 man dama bàyyi. Macky Sall ma dem ànd ak président Sonko man may njaagu Sonko waaye Mamour Diallo sama xarit la dëgg la tudde naa ko doom c'est vrai mais lii moom ànduma ceeg moom te waaye nag malheureusement li mu waxoon am na moom ne woon na ne procès day am Adji Sarr procès am kon Adji Sarr li ñu ko digoon am na Adji Sarr nag dina fi jóge nekk star parce que moom lii la bëgg xale la boo xam ne xamul liggéey gii riir waaye projecteurs yi daal di ko dar ñu soloon ko ay yéru yi rafet xam naa ne fi mu nekk Adji mi ngi jubilé mi ngi yuuxu mi ngi tëb di dal Françoise Hélène Gaye mi ngi yuuxu mi ngi tëb di dal euh, Maty Trois mi ngi yuuxu mi ngi tëb di dal ah Gabriel kan mi ngi yuux mi ngi tëb di dal ndax lii dañ ci am xaalis bi du jeex Adji Sarr moom fii lay jóge tekki ba faw dinañ ko solal yére yu rafet ah dañ ko dugal ci appartement yu baax ndey ndeysaan caméra yi war ko adduna bi yëpp di wax ci moom waaye bu xamoon ne lii baaxul ci moom xëy na moom di ci dugg vraiment en tout cas man dal trop pour Sénégal ndax man sénégalais yi duñu Ousmane Sonko di toroxal di ba di wax né do bokk Macky Sall nak li def ko procès c'est un procès où euh, n'est-ce pas euh, euh, toutes les caméras seront braquées sur Ousmane Sonko Ousmane Sonko va devenir aussi une star planétaire et le monde entier saura que il y a une cabale, n'est-ce pas Il y a une chasse aux sorcières. On veut éliminer un candidat et euh, on saura que le, le, dossier là est un dossier vide. Mais surtout, la question du troisième mandat, euh, n'est-ce pas, fera la une de, toutes les, de tous les journaux. Quand Macky Sall, si yaakaar li lu baax la ci mom mën na këpp ci mom ndax tay Ousmane Sonko boko ko nga né dang koy euh, ñëpp dinañ wax ci mandat aduna bi dinañ ko wili Ousmane Sonko dinañ ko gën a xam ndax événement yële ba mu amee mars 2021 euh, le 8 mars aduna bi yëpp dañu xam Ousmane Sonko Al Jazeera CNN hein, France 24 TF euh, euh, New York Times ñëpp dañuy wax ci moom. kon Macky Sall attention mi ngi jouer mais on va voir Ousmane Sonko nan lay tonto yow askan bi nan lay tonto kon nak ñëpp ñu contre Ousmane Sonko di yuuxu di tëb di dal bu yóbbu ngeen def ndànk ndax bu boobaa. lu mel ne Ahmed xalifa ñas tudd na Adji Sarr tudd na la Abdoulaye Daouda Diallo Adji Sarr tudd na la Bougane Adji Sarr tudd na la euh, Farba Ngom Adji Sarr tudd na la Khalifa Diakhaté Adji Sarr tudd ñoo ñëpp mu ne ñii ñëpp ay imbécile lañu tëdd na moom mu ne tëdd na ak ñoom kon nag tey ñooñu tey bu ñu yaakaar ne dañoo am victoire amuñu victoire gars yi laaj leen partagé leen abonné leen Mister Shake la ñu defal leen beneen ñoom ñu defal leen vidéo Cheikh Bara Ndiaye jërëjëf waaye Cheikh Bara Ndiaye mii doon wax ne euh, euh, Maham Diallo dafa jullite ana Akhenaton bu doon wax xam naa ma Maham Diallo parce que partagé ne benn euh, euh, affaire su Ousmane Sonko rek bu leen wax ne dafa far mais vraiment Maham Diallo waruloon sax laal ju euh, dossier bi ndax dossier boo xam ne yow da nga ci war ne da ngaa far contre contre Ousmane Sonko nit di wax ci Ousmane Sonko nga jël affaire boobu nga partage ko te yow nga nekk juge bu doon Amérique doo laal dossier bi mais Sénégal lañu nekk nekk ñu Amérique. kon nag Akhenaton Cheikh Bara Ndiaye ñu ngi xaar seen réaction jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye patriote la ba léegi vive le président Sonko vive yow askan bi vive le Sénégal gars yi like leen partage leen a Mister Shake la ba beneen defal leen vidéo ah, merci